13 minutes de vérité au plaisir de vous retrouver TV ci seen programme bi nga xamante ni dañu koy dégtal Euh, semaine bu jot tout au long je dirais de la semaine euh, à savoir euh, seen émission bi leen fas yéene gunge leeral leen aussi ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité bi noonu aussi tey la ñu amee mbégte di fi recevoir le ministre Farba Senghor ngir mun a échanger ak moom ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité bi dinañ ci bokk choix bi nga xamante ni beneen bokk yaakaar porte nañ ko ci Amadou Ba démb jot ngeen suivre foofe ca palais de la République kaddu yi nga xamante ni moom Amadou Ba yëkkati na ko fa ginnaaw bi nga xamante xamante ni jot na ko signé pacte d'engagement euh, jëm ci coalition bi di benn bokk yaakaar ak kaddu yomu ca toftal lépp tey dinañ ko analyser ak suñu invité di monsieur le ministre Farba Senghor moom fi ñu ñëw ci li nga xamante ni moo ñeel dëgg-dëgg présidentielle bu 2024 yeneen i candidats yi Ousmane Sonko ak it avocat yi nga xamante ni jot nañu saisir li nga xamante ni moo di cour suprême ak tribunal bu Ziguinchor ngir contesté li nga xamante ni rek wàcc na ci dogal ci moom lépp tey dinañ ci waxtaan ak yeneen i candidats yi nga xamante ni rek annoncé wu nañu jëm ba tey ci présidentielle bi pour 2024 mais laata loolu dañuy bàyyi suñu invité mu nuyoog yéen monsieur le ministre maa ngi amati mbégte ak yow di la nuyu te di la bàyyi nga nuyoo. am naa mbégte loolu tey ñëwaat ci sa émission invité bi ma invité. Mm-hmm. di nuyu borom kër gi nuyu ñi nga xam ne ñoom nga bokkal liggéey bi yëpp. Mm-hmm. Euh, di nuyu itam ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew mi. Mm-hmm. alors monsieur le ministre yaa ngi fa woon Amadou Ba euh, naa bañ koo tabee mu nekk candidat bi war a représenté euh, coalition bu Benno Bokk Yaakaar coalition ba nga xamante ni yaa ngi ca biir donc moom démb signé na d' engagement éthique. et politique de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba s'est engagé à préserver l'esprit Benno euh, le gouverner ensemble et le gagner ensemble. président de la République euh, Macky Sall euh, daf ko wax ne ko man damaa diglante ak sama ay nawle ñoo xam ne maa ñoo ma àndoon am na ñoo xam ne ñu toog fii ñëpp ñu bëri alors bëggoon nañu jël place bi nga nekk tey ma jox la place bi te man ba nga xamee ne jot naa bi gi ba léegi. Euh, dama def ne nguur gi dañ koo war a ànd nekk benn unité ba pare ñu partager euh, pouvoir bi man ak ñi ma ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñuy xalaat mu ne ko jataay bii weeru jot lu ñuy xalaat rek fi lañ koy toog wa xalaate ko hmm. donc loolu moom moo téye Benno Bokk Yaakaar ak euh, li nga xam ne moom si boppam mooy programme Sénégal émergent alors bi mu yore donc kon moom bëgg na mu taxaw mu jàkkaarloog ñoom mu mu mu delloo leen doole leen njukkal liñ ko ji mu delloo leen ko ci la nag nangu ne day signé pacte d'engagement engagé wu mu ne li mu déglante ak ñoom mooy ànd liggéey ak ñoom ànd yeggale liggéey bi nga xam ne moom la président sumboon ànd def li nga xam ne ñoom lañ yaakaar ne moo gën ci réewu Sénégal ñu mbokk ko def mu mu engagé wu taxaw euh, wax euh, dëgëral ay ay kàddoom mooy li nga xamante ni na ko tënk ci sept points ci sept points waaw mais en général li nga xam ne moom moo ci moom moo ci am solo mooy comme ni ma la ko expliqué rek liñ doon def mu ànd ci ak ñun euh, li nga xam ne moom la président mébét alors muy mu yeggale ko ak li nga xam ne sénégalais gi seen bopp alors moom la ñu xalaat ne euh, moo baax si ñoom ci vision bi président Macky Sall am ñu def ko loolu la mais engagement bi au fond moom mooy moom si boppam alors mu wane ne moom du tàggoo ñoom mukk unité bi du tàggoo ñoom moom dana leen déglu moom dana ànd ak ñoom te du dem mukk am beneen cëslaay bu mooy Euh, Benno Bokk Yaakaar moom la tënk si juróom-ñaari point yooyu. mais c'est-à-dire si juróom-ñaari point yi dafa am point bi nga xam daf ci ñëw ci li nga xamante ni ñeel na euh, le bilan immatériel bu président euh, Macky Sall parce que mu wax na ko bilan matériel comme immatériel donc lu nu mel gis nañu mu junj ci li nga xamante ni moo ñeel wàllu xëy yu ndaw ñi gis nañ ko tamit mu junj ci wàllu incarcération ñu ni mel mais la question qui se pose mooy tey président li mu réussirul pendant 12 àdduna dara sottiwul àdduna dara du xëy sotti àdduna mébét rek la parce que man ba ma fanaanee bu ba set li may xalaat bëri na lool mais xaj nañ dans la journée lii dafa am dafa am ay limites yoo xam ne mënuloo ko passé donc moom xam nañu vision vision vision mooy yow sax xel lan la bëgg xelu président Macky Sall mooy defar ay infrastructure Sénégal lépp loo xam ne soxla nañ ko muy ay yoon mu ne ay muy ay mbedd muy ay avion muy ay université muy comme yokk xalaat ndaw yi muy formation muy yokk liggéey ah jàppale baykat yi jàppale xale yi alors jàppale mag ñi euh, dimbale nit ñi nga xam ne amuñu comme bourse allocation yi muy jox cest à loolu mooy les grandes idées idées générales yi nga xam ne mooy président bi am na ko loolu géej la goo xam ne alors mën nga ciy sëmb ay ati at te doo xam fa géej gi yem donc li am solo mooy lépp loo xam ne yow nekk na sa mébét nga def ko yeggale ko ndax soo commencé mandat bi soo jeexalee ñu ne lii yaa ko def kon comme président ni mu taxawee ay 2016 dama damay defar damay defar euh, kii yoon bi terre damay defar terre defar saxaar gi ñu naan ko saxaaru 600 millions yow milliards mënoo ko fay defar mu mu am yéene mu yeggale ko euh, mu del ñëwaat damay defar euh, kii bi bis bi bi jógee Guédiawaye BRT bi ah gars yi ne loolu mënut a am dafay wax mu def ko ba tey ñu gis ñu gis mu taxaw ak euh, sphère euh, ni mu déplacé woo euh, ministère yi fi mu nekkoon yóbbu ko jam ñaajo cest dire loolu mooy dangay ngay mébét da koy transformer mu nekk en réalité dégg nga loolu. oui mais ça c'est le bilan matériel. mais lépp mënu ko def oui c'est le bilan matériel. waaw mais justement c'est-à-dire la question qui se pose mooy tey jii comment Amadou Ba peut faire pour convaincre les Sénégalais vu que ni moom il c'est-à-dire il est là pour assurer la continuité maintenant sénégalais yi nga xamante ni ñoom kontaan nañu ci ce qu'on appelle le bilan immatériel maanaam askan bi jafe-jafe ñuy dund métti métti ñu dund jàppaate yu bari yi am ci réew mi ak yu ni mel lu ni mel yëpp tey jii moom bu fekkee ni moom c'est le candidat de la continuité naka la ko askan bi mënee wóolu sachant que ni le président a fait 12 ans dans ce pays te ba tey amuñu satisfaction ci wàllu woowee. noo xam nga nit ku nekk soo ñëwee ak sa ak sa doxalin ak sa ñu dañ ne ko d'une manière général vision globale bi ñoo ko mais moo war na indi une boo xam ne dañuy naan marque bi marque Amadou Ba la parce que man gis naa si ay réseaux sociaux yi euh, ay deux semaines avant une grande campagne ay lobbying ñoo xam ne ñi ko doon def bokkuñu sax ci Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ne ay entrepreneur lañu ñoo xam ne ay industriel lañu ak ñoo xam ne feneen lañ bokk donc xam nga loolu ce sont des des des franches euh, mooy ay ñoo xam ne dañuy ñëw ñu bees. ñu ñëw ñu ñëw wàll si ñu ñëw wàll si loolu donc leneen li tam euh, par exemple xëyu ndaw yi euh, àdduna day dox ak réflexion donc mu mun na indi ak waxtaan ak nit ñi ak wax gën a waxtaan ak sénégalais yi moo indi ci gis-gisu boppam ba xëyu ndaw yi alors ñu gën ko ñu gën ko ñu gën ko ñu gën ko ñoŋal. mais depuis 12 ans. mais depuis du àdduna bi darul jeex. c'est-à-dire que am nañu am satisfaction xam nga Sénégal tam day évoluer démographiquement. Sénégal day évoluer démographiquement te soo seetloo ces dix dernières années li sàppee euh, Sénégal mooy l'évolution des réseaux sociaux réseaux sociaux yi dañu indi une démocratie sauvage nous sommes dans une démocratie sauvage cest à yaakaar nañ ne lu leen neex lu leen neex ñu wax ci rajo yi lu leen neex ñu wax ci télévision yi ku mu neex nga nekk candidat à l'élection présidentielle kenn ku nekk mën nga nekk président mais kenn ku nekk mën nga nekk imam kenn ku nekk mën nga nekk xarit général mais c'est ça qu'on appelle une démocratie souvent day nekk dëgg cest à askan wi dañu am seen gët ñu xool non askan wi di xam nga sa doom sa doom ca kër ga te kontaan nañu ci li nga xamante sa doom day jooy say doom day jooy du kontaan mais da nga xam ne day jooy ci loo xam ne yow soo ko ko bàyyee loolu day gaañu ci ce qui s'est passé en ces trois dernières années bu amee ay Samba Ba yuy jóg di lakk dëkk bi yuy jóg di lakk terre bi te loolu yi lakk moo gën a moo gën a yomb ñuy jóg euh, di lakk euh, BRT bi ñu lakk université mais quand loolu da nga ko war a arrêté da nga ko war a kii cest à que fi ñu ko woo mooy euh, président Macky Sall dans le domaine de la sécurité d'assurer la sécurité des bien et des personnes kooku mu réglé ko loolu ci la bokk c'est-à-dire que sa doom bi su jógoon fii bëgg a dugal loxo ci taal bi Euh, mais doo ko ci bàyyi da nga téye mais fan ngay dugal fan ngay dugal li ñenn ñi jàppee jaay doole nan nga ma ne fan ngay dugal li ñenn ñi jàppee jaay doole mais am na ñoo xam ne a jaay doole ne war a jaay doole parce que la force ah c'est la force qui impose quelquefois la paix quand quelqu'un jóg defar cocktail mu la tool gis benn bis buy dem mu ne ko ci réel daal di ne man alors vraiment parce que damay jàppale Sonko wala damay jàppale diw quand quelqu'un dem à à l'université muy muy wéy Sonko di lakk université di lakk di di lakk euh, kii bi euh, les archives nationales ah mais kooku da nga ko war a jàpp c'est-à-dire kooku da nga ko war a tëj. nous sommes d'accord CESTI ku fa mu forme mu forme grand journaliste. nga gis benn waay bu ñëw moom xamul li xew. mu ñëw lakk ko toj ko mais dañ ko war a jàpp. c'est-à-dire que la la paix la force est souvent nécessaire. et la force doo être nous sommes d'accord mais jaay doole bi dafa dugg ba ci tey jii euh, moo xam ci opposition bi ak yenn organisation euh, bu ñu bëggee def souvent ay manifestations ak ñun mel ñu bañal leen ko loolu yëpp tey dañ ko dëxañ ci li nga xamante ni moom ñoom tuddee nañ ko euh, je veux dire l'opposition ak ñenn ki Sénégalais le bilan immatériel du président donc Amadou Ba tey jii monsieur le ministre s'il veut réellement que les Sénégalais aient confiance en lui est-ce que tey jii waru indi beneen politique bu utee ak bi nga xamante ni moom la fi loo xam ne da ko war a continuer c'est-à-dire que li ngeen di junj yëpp mooy war nañu bàyyi ñoom Sonko war nañu négocier ñoom Sonko teewul leen a bàyyi parce que ñii ku leen toppoon Sénégal dafay tas c'est-à-dire c'est des gens qui étaient venus pour parce que ñoom dañu jàppoon ne ñoom seen bopp alors suñu amul mbir mi na tas na na yàqu ils ont joué ils ont Sonko a joué a perdu parce que dafa jàppoon ne moom soit Sonko dafay nekk euh, dafay gagner nekk président wala lu mu bëgg mu am ko. ah wala su ko demul réew mi nekk kaw. il a mais y' que Sonko mais quelqu'un qui joue. ñi ànd ak moom yëpp mais y' a pas que Sonko non tous ceux qui ont joué sur ce registre ñi joué ci registre bu yëpp. yaakaaroon ne li ñu amul su amul Sénégal day tas wala Sénégal daanu wala bu nekk coup d'état wala ñu lakk réew mi ñooñu ñooñu tey dañoo perdu ils ont perdu comme dañoo perte nag il faut que amulu Ba su ñëwee ñooñu na dem ak ñoom ba jusqu'au bout c'est-à-dire que parce que ñooñu su leen bàyyi ñëwaat. mais réew mi day tas. kon bu dee point boobu jot a soppi léegi ban point la mën a indi ay coppite. non fépp lu mën a soppi lu wutee ak ak li fi président teg depuis 12 ans. non lu ñu mënta soppi amul lu ñu mënta améliorer amul donc Amadou Ba doit s'atteler à améliorer tous les secteurs lu fi président Macky Sall def il doit faire plus. parce que doom su juddoo dafa war a nekk plus que son père. mais comment. non comment il peut le faire parce que am na ñenn parce que am na ñenn ñuy wax déjà que ni Amadou Ba en tant que président c'est comme si accepter une troisième candidature de Macky et que peut-être sax de derrière. président moom mooy connaît di di gouverne. ma ne gis troisième candidature. dañoo jeexal parce Macky ne leen jël leen seen troisième candidature. léegi ñu ne. même Mimi Touré laa di. ñu ne ñu ne troisième même Mimi Touré wax waaye Mimi Touré moom xolam dafa tàng rek ci ci mbir moom elle moom kii na xam na ne euh, moom génn na ci système bi waaye Mimi au centre du système sa à dire Mimi ute wut ak Macky ute wut ak man ute wut ak ñi fi nekk ñëpp ute wut ak Amadou Ba ñëpp benn la mais n'a-t-elle pas raison quelque part. mais Amadou Ba mooy Macky Sall Macky Sall mooy Amadou Ba. mais moom itam mooy Macky Sall. c'est-à-dire que moom itam mënta fexe ba génn te du nekk Macky Sall. non parce que moo non attends tagg Macky tous les jours moo fi doon tagg Macky Sall kon Mimi ak Macky amul benn différence xanaa kay nekk ci biir la ak ba nga nekk ci biti moi je sais que tey su fekkoon mi mi ngi ci biir kon ñooy ànd di waxtaan muy ànd ak Macky di ree di ànd ak Amadou Ba mën a jàpp ji su fekkoon ne moom lañ jiitaloon Amadou Ba ànd ak moom Macky Sall di ànd ak moom kon ñëppay baax mais ànd na bi moo warta doxee noonu parce que choix dafa metti tànn benn nit ngay tànn saa xoolal Sénégal di euh, ay ay dix-sept dix-sept ou dix-huit millions de personnes nga war cee tànn benn nit yow nga ànd ak au moins junne nit ñoo xam ne kenn ku nekk mën na nekk président yaa ngi gis déjà y a deux cent candidats qui se sont ñoo ñooñu war cee tànn benn mais c'est un choix qui est toujours difficile donc nit ñi nag souvent sont orgueilleux dañ yaakaar ne ñoom suñu amul rek alors dañu war a gedd mais yow koo xam ne mosoo am parti politique mosoo am mouvement mosoo am dara lu ñu lay déggee nga xëy benn bés ne ma damaa bëgg a nekk président de la république xam nga loolu ay jaaxaan la mais c'est de l'enfantillage cest à dafa am yoo xam ne xel nanguwul ko ça il faut Sénégal yi xam ne ñu bëri dañuy jóg tàllal seen loxo xel nag Abdoulaye noonu réew mi kenn mënu koo gagné te amoo fi parti politique kenn du jógee fële ñëw gagné ko ci démocratie donc dama la bëgg wax ne la ay immatériel ak i ay matériel ak i gis nga affaire bi daan sa bool neex am ñoo xam ne seen xol neexul parce que suñu sayoon tey jii réew mi mi ñi ngi reyante parce que président Macky Sall dana may wuti troisième candidature président nag nekk ko léegi ñun ñoo moom ñun ñooy choisir ñun ñoo toog mu neex ñu ne Amadou Ba la ñu bëgg mais tamit bàyyi leen su ku ci am bër ku ci am bër na ñëw na ñëw mu jàkkaarloo mais monsieur le ministre monsieur naa ko sax démb mu ne moom euh, sa candidature est consensuelle donc euh, c'est à l'unanimité mais euh, bu ñu fàtte ni tey jii euh, ni ngeen choisir Amadou Ba bëri na ci ay frustration parce que bu ñu gisee ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye d'ailleurs sax ñi ngi xamal ni dina tenir ab conférence de presse ni ki samedi ñu ngi ni lan la fay wax ndax dafay def une déclaration de candidature wala bokk yenn kàddu la fa nara la fa nara yëkkati ñu ngi koy xaarandi ni ki ni ki ni ki samedi gisoon nañ aussi Abdoulaye Daouda indi indécis au départ plus tard mu ñëw wax ni dina soutenir le président sans pour autant benn yoon tudd gi nga xamante ni moom moo di Amadou Ba donc ñu suspecté que ni ba tey euh, peut-être jafe-jafe yaa ngi ci biir oui bëgg naa bëgg naa bëgg naa tout à l'heure mais gis tamit ku mel ni Boun Abdallah Dionne plus tard moom mu dépose sa candidature donc mu ngi mel ni tey jii Amadou Ba démb mi wax fàtte na ni moom euh, il fait pas l'unanimité à benn bokk yaakaar ñu bëri ànduñu ci li nga xamante amul fenn fii sax am na ñoo xam ne àndu ñoo yow bu ngi la gis sax nga toog di nga toog di mën nga toog fii mën a jàkkaarloo gaa yi toujours ngay invité ay grandes personnalités. oui suñu sañoon ñeneen ñi ñooy ñëw di ko invité te si at at na moo mel noonu. mais dama laa bëgg a wax ne la Aly Ngouille Ndiaye. Euh, Boun Abdallah Dionne. Euh, Daoud Mame Boye Diao ak ñooñu ñëpp. c' est légitime ñu demander ne dañoo bëgg a nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar parce que Benno Bokk Yaakaar c' est la structure moom moo nekk ci biir système bi ku mu jël ne la yaay candidat. tu as plus de chance que tout le monde ici au Sénégal au premier tour waaye yow ñooñu kenn amu ci parti politique ñooñu kenn amu ci mouvement en dehors de Benno alors soo leen di natt euh, mesure ba ñu amoon ci biir Benno ak en dehors de Benno du nekk benn c'est zéro contre quatre-vingt-dix-neuf c'est-à-dire nit ñi dañuy nit ñi nit ñi dañu war a science am nañu légitimité ñu ne bande Aliou Ndiaye man de bugg naa nekk Benno su ko Benno jëloon tey day nekk place Amadou Ba lii ñu jox Amadou Ba moom lañ koy jox mais su ko bennoo jëlul day dem dëkkam commencé zéro ba mu commencé waa département bi yëpp maire yi ko jóg ñu taxaw woote ne ñun ñu ngi ci bennoo ñun ànduñu ak moom déjà donc il faut que ñu am xel dégg nga comme ñoom li ñuy yootu mënuñu ko jot ñoom ñoo ñu ñëpp mënuñu raw bennoo li ñuy yóotu kenn mënu ko ci jot mën na yàq nag parce que benn nit rek su ko bennoo amul. ma ci yàq bi. waaw d' accord alors que yéen a ngi bëgg conserver le pouvoir liggéey ci a ngi ñoom ñu dem ci jamono yu nga xam. ñoom ñu a yàq dama lay wax rek est que yow mën nga ànd ak président ànd ak Macky Sall yow nga ànd ak yow waa jii def promoteur nii nga ànd ak moom ah mu yore indi promotion nga jàppale ko ngeen nekk ngeen di benn ngeen dem ba benn jamono mu xalaat ne man de diw moo may remplacé nga ne ko soo ma wul alors man damay dem def sama yëfi sama yëfi bopp mais te yow nga yaakaar ne yow war na la koo mën a jox ñëpp bàyyi liñ jàpp yow nga yaakaar na yow par exemple Aly Ngouille Ndiaye euh, euh, euh, premier ministre Boun Mame booy Diao ku nekk yaakaar ne soo ko laajee président man na la koo jox am nga ci légitimité te soo ko su la ko joxee ñëpp lay topp man Farba Senghor ak Mademba ak Massamba ñëpp lay topp waaw est-ce que amul ñeneen ñu mel ni yow ñoo xam tam mën nañ nekk position boobu. mais lu tax dañoo war a nit war a égoïste dañoo war a fair play. su fekkee ne yóotu nga dara am nga droit nga xeex jusqu'au bout nag mais soo demee ba xam ne kenn koy jël su ko jëlee bàyyee ko ko ëllëg nga wutiwaat leneen. mais lan la Amadou Ba soo bëggee tas système bi day mel da ngaa bëgg a yàq li fa nekk. mais lan la Amadou Ba ëppale tey wala ku mel ni Abdoulaye Daouda Diallo wala ku mel ni. confiance président Macky Sall bi koy joxe il a à actuelle plus de confiance à Amadou Ba qu'aux autres jeex na. lan mooy expliquer loolu. ah moom moo xam yan critère mais man man jàppoon naa ne premier critère yi. ci ay conseil nga mooy mooy PSE jàpp naa ne premier critère bi. mooy PSE bi moom ak Abdoulaye euh, Daouda Diallo ñoom ñëpp alors PSE bi ci la ñu nekkoon waaw moom tam yore na ps e bi dawal na ko doxal na ko ñoom dawal nañ ko doxal nañ ko donc vraiment ñooñu ak ñeneen légitimement war nañ man ne yow président Macky lii nga yore ñun mën nañ yow nag li kees nag mooy seen profil am nañ sax. kenn ku nekk profil bi même su fekkee ne profil yemul mais quand même Macky bi nga xam ne moom mooy jël moom mooy joxe mu ko war ko jox kenn war na ko mën a jox kenn bàyyi keneen. mais yéen ñii ay conseillers lu tax conseil wala wu leen ko ku mel ne Abdoulaye Daouda Diallo. wala ku mel ni man man Abdoulaye su ma sañoon moo koy nekk man man ma sañoon moom moo koy nekk. buun sama dëkkandoo la ñoo bokk gosaas su ma sañoon ñoo koy bokk daf koy nekk donc mais c'est l'intérêt général qui prime en sur ay intérêt. privé yi ak personnel yi. d'accord donc li gën ci réew mi mooy lii ñëpp ànd d'accord ci même ñëpp si àndoon juum sax loolu moo gën parce que c'est l'unité ki fait la force te unité bi tey mooy waa Benno yëpp d'accord ne Amadou Ba la te y a pas de contestation en dehors de euh, mon ami euh, maître kii El Hadj Diouf. oui El Hadj Diouf moom day taxaw ne man bokkuma bëgguma man damaa bëgg a nekk candidat et puis là aussi c'est légitime mais ñëpp dañuy ñëpp dañ ñoom dañ ko reconnaître sa légitimité. mais à part moom kenn ñëw fa taxaw naan man damaa bëgg a nekk dama nangam. amul ñëw contesté. d'accord entre entre mais ñun ñoo suñu affaire da Sénégal dañu war a xam ne. Mhm. nañu dépassé problème mu Amadou Ba lañ waroon a jël wala euh, Abdoulaye Daouda Diallo waroon a jël wala keneen lañ waroon a jël ñun dépassé nañu loolu li xam kan lañ jël. Amadou Ba la ñu jël nañu waxtaan ndax Amadou Ba nan la war a def gagné ñun ban taxawaay lañ war a am pour gagné mais bu leen ñu yóbbuwaat ci discours yoo xam ne. c'est des discours c'est important dañu bëgg xam aussi dañu parce que ñoom ñëpp bokk langue gi ku ci nekk am nga qualification yi maintenant bu ñu rombee ñëpp ñëw porté alors que ñoom sax ñenn ñenn ñi ngi naan ñoom ñoo gën a légitime Amadou Ba parce que ba ñu nekk ci parce que mënoon nañ leen choisir cest à léegi dama bëgg yéen man li may li may conseiller Sénégal yi ñun passé nañu dañu war a choisir wala déet parce que soo demee ba réussi mais xam nga ne yow togg euh, togg euh, cere wéy ah soo reçu ceeb yooyu donc fi wéy na c'est-à-dire affaire bi wéy na fi mu toll nii xam fan lañ toll li ñu jëm ci suñu kanam nañu wax ni ñuy def ba Sénégal alors ñun ndax mën a gañe wala dañ gañe ñeneen ñi ñoom ban taxawaay lañ la am pour mën a gañe pour mën a foqti li ñu yore voilà man jàpp naa ne. loolu kay wax nañ ci ba pare sànq. ah déedéet wax bu ci ne ay 200 personnes tey bi ñuy doog a bi ñuy doog a démarrer euh, mais c'est-à-dire euh, par rapport ak euh, pléthore de liste yi dinañ ci ñëw léegi mais juste pour tëj partie. Amadou Ba bi euh, tuuti bu dee yaa ñuy suivre nga ñëw euh, gën a li nga xamante ni moom moo di micro euh, monsieur le ministre de ce fait déggin bi gën a neex mais monsieur le ministre ni ki démb jot nañu suivre d'ailleurs Salé Zico wax nañ ko ken ni démb vraiment ki saal bi foofee ca palais bi nga xamante ni yaa ngi fa woon gis nañu diggante Amadou Ba ak ki nga xamante ni moom moo di Abdoulaye Daouda Diallo kaaf beeg waxtaan bi alors que ñu bëri yàgg nañoo wax ni ñoom ñaar seen diggante neexul ngeen ci dox ay tànku jàmm wala boog lu ni mel ay rumeur rek la woon Moustapha. nga xam nga Sénégal dañoo bëri demlante ak fekklante dama la wax ne la yow su fekkoon ne. Mhm. Euh, tey da ngaa toogoon ci da nga romboon seen waa kër. Mhm. ñii ci seen buntu kër ngay dem marché gars yi wax da ngay togg ceebu ngay wala ceebu ngeen yi moom ñoo mel noonu moom ay compagnons la yàggoon nañu ànd. yàlla def na ay xarit lañu woon sax parce que PSE bi ñoo ngi doon liggéey guddi ak ak bëccëg président da daan woo ñoom ñëpp ñëw ñu toog mu leen defal leen ma lii defal leen ma lii ñoom ñi bokk di liggéey mais dañ dem ba foo xam ne problème d' ambition la woon ñoom ils sont pas des prétentieux parce que kenn ku nekk am nga les qualités requises mm-hmm. pour mën a nekk président mm-hmm. mais quand ah c'est une c'est une compétition une compétition normale une compétition boo xam ne kenn ku nekk da nga ci ñëw ak ak ak ak ay ak ak ak ay atout sérieux mais donc yow da nga war a wane ne da ngaa bëgg mais soo demee ba nga xam ne jël nañ keneen mais da war a bàyyi la nga jàppoo su fekkee ne bëggoo système bi yàqu na nga war a bàyyi moo tax moo tax Ablaye Daouda kii Diallo def na la mu war def taxaw na waree na ni damaa bëgg ne président kooko bu mën a jox itam war naa ko mën a yore ah, dëggal boppam ba président xam kii la nga xam ne alors moom moom lay wut d'abord gëm na ko mhm. ensuite kii li muy laaj moom mën na ko nekk mhm. donc c'est ça donc léegi nag su affaire ba jeexee mais jeex na léegi il faut travailler pour l'unité il faut travailler non mosuñu xuloo mosuñu xeex waaye kenn ku nekk dafa amoon loo bëggoon mais ni ñi ci biir nag ñoom ñooy wax dañuy jàppante dañuy xuloo ah, fekk dara mais ay ambition yi li nga wax choc des ambitions la mais du du choc de prétention d'accord te ñii ce sont des gens avertis mm. mais xam nañ ni lii ñu yore nii mais su yàqoo nga nar a commencer à zéro mais euh, yow yow kañ egg si xoolal kii euh, le ministre là ki nekkoon ministre des transports dëkk Thiès kii euh, euh, ministre nekkoon nekkoon ci Macky yi euh, Thierno Alassane Sall. oui Alassane Sall mooy un exemple rek quand il sortait il était il pensait qu'il était parce que force bi ngay sentir soo nekkee dans un système soo moytuwul rek dafay yóbbu sa bopp da nga yaakaar ne yow lépp nga man mais depuis qu'il est sorti mais gis nga mën a rassembler quelques personnes da gis nga rek ay riir topp la même chose soo nekkee ci biir mbir yi. da nga yaakaar ne am nga doole. mais mais jën la jë jën lañu. gis na ay concurrent la bokk sax d'ailleurs. non non mais dama jox exemple rek. suñu concurrent la bokk mais joxuma ko pour rien ce n'est pas pour le dénigrer boo jox exemple. que soo nekkee ci biir da nga yaakaar ne am nga doole. mais comme jël la jën su génnee ki ndox dootu am doole. d'accord ñu nekk Benno Bokk Yaakaar nag yore doole ku ci génn da ngay xam ne jën nga bu ñu teg ci ci ngelaw li. d'accord voilà alors monsieur le ministre. Euh, ci biir benn bokk yaakaar euh, bi ñuy désigné li nga xamante ni moo di les con les coordonnateurs ci ñeel parrainage bi donc euh, de qu'on dise que ni ñu mel ne waa parti social dañ cee mer parce que nag ba ngeen di seen i coordonnateur dañoo jël uniquement ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa APR donc impliqué wuñ ci benn yoon ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa parti socialiste AFP yeneen parti composante yooyu benn bokk yaakaar lu ni mel aussi lan lay expliqué sachant que ni nekk daf ci war a gis boppam non loolu ñu wax dëgg la xanaa avec projet la woon yoroon rek c'est-à-dire projet bu bu ñu yoroon gars yi indi ay plusieurs projets ñu teg ko xam naa ñu génne ñu génne benn projet mais waxtaan wi ça ça continue parce que président yaakaar na ne képp ko xam ne am une revendication légitime dañ ko war a tenir en considération donc mbir yi te lu sax xam nga affaire affaire kii nu mu tudd ay coordonnateur ay parrainage mais yow sax mën nga ñu nekk suñu coordonnateur yow laa wax mën nga nekk su ko looy def yaa ngi machine yi ku ñëw nga ne ko andi mu andi nga bind Ablaye Ndiaye. mais xëy na dañoo bëgg ñu gën a impliqué ci mbir mi. centre ñu ngi ci biir ñun on avait ak président nañ ko jox jeunes yi parce que nañ ko jox jeunes yi ñu am occupation dem toog foofu di jàng ñëw tam ci mbir yi c'est ça qu'on avait parce que bu ngeen nee ba fii à Dakar ngeen jiital Abdoulaye Diouf Euh, teg si ñeneen ñeneen moo tax ce matin maa ngi maa ngi lire ci les échos que ni ku mel ni Bouna Sall euh, bu parti socialiste kontaan ci ci di boobu di doxalee est-ce que lu ñu mel déjà ngeen jëm ci di commencé di mer ñii di gën a mer. du gën a bi moom ñàkk a ñàkk a comprendre ñàkk a comprendre ñun ñun li ñu taxoon a jóg ñun dañoo waxoon loolu parce que attends c'est pas la politique. Mm-hmm. le fait que yow ngay ngay calculer. nit indi fukki fukki fukki kii ñoo andi la kenn fukki parrainage nga ne. Fatou indi na fukk euh, euh, Ablaye indi na indi na trente nga calcule man def ci machine mais kooku une personne anonyme man na ko def man anonyme amul dara lu mu lay yokk amul dara lu mu lay wàññil ñun bi nga doon def PDS dañ daan am un centre boo xam ne ay xale yi dañu fay teg gen yi ah dañu seet ku xam informatique ku xam machine yi ah ñu jël Aliou Niang wala ñu jël ku mel ni ay Omar Sarr yooyu ñu xam ne man nañ machine yi ñu ne leen nekk leen fa jël ko man man leen toog ku ñëw ma dajale calculer daal di jël dugal ci machine yi gars yi dugal ci machine ñoom parce que ñoo xam ñoom ñoo xam ordinateur mais c'est ça c'est-à-dire que ñoom waa PS yi euh, ces revendications ak euh, ñeneen yi c'est légitime parce que loo comprendrewul comprendre oo ko mais su suñu comprendre mbir yi dañuy xam ne foofa amul dara loo xam ne kii kii est politique mais nag il faut que nit ki dem soo ànd ak moom nga koy pour mu comprendre ci li nga nekk mais loolu vraiment c'est rien. d'accord voilà. donc à rappeler que vous suivez toujours votre émission de la semaine 13 minutes de vérité ñu am mbégte di fi recevoir euh, le ministre Farba Senghor ngir mën a waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo gën a fës ci actualité bi rawatina ci làngum politique bi. alors beneen question d'actualité yëg nga ni les avocats de Ousmane Sonko euh, déposé nañu ñaari recours benn bi ci Cour suprême benn bi ci ci tribunal bu Ziguinchor benn bi nag euh, moo ñeel li nga xamante ni metti na leen ci DGE ba ñu demee di jëli ji fiche de parrainage. pour Sonko ci coalition bi di Sonko 2024 ñu bañal leen ko beneen recours bi nag moo ñeel Sonko bi ni ñu ko ni ñu ko génnee ci li nga xamante ni rajee ko ci liste électorale sa gis-gis par rapport ak lu ni mel ñenn ñi gis mooy injustice bi les les hommes politiques du Sénégal sont vraiment orgueilleux dañuy xalaat rek pour seen bopp te on a on a vécu l'expérience ak Karim Wade gaa day waxoon Karim Karim la amul B amul C amul D amul Z Karim la Karim la Karim la le but c'est quoi c'est que à part Karim du am benn candidat buy présenté wu c'est la même chose les sénégalais sont orgueilleux parti politique yi gars yi dañu yaakaar ne ku moom parti bi wala ku ko jiite yow yaa war a jël yëpp ñëpp toog xam nañ ne ku xam mbir yi xamoon ne Karim jeexal na te l'histoire a montré que dem nañu ba élection Karim ne s'est pas présenté il n'a pas pu se présenter. moo tax amuñu woon candidat en 2019. parce que il y a parce que yaakaar nañu ne parti yi personnel lañ benn nit moo ko moom sul kooku du keneen c'est la même chose qui se passe avec Sonko gars yi dañuy dawal dawal ba élection ba ñëw Sonko dem duñu am candidat loolu lañ bëgg parce que à part Sonko bugguñu ko jox keneen c'est-à-dire à part Sonko bugguñu jox euh, keneen parti bi bugguñu jox keneen bien que parti bi dissout nañ ko l'héritage bugguñu ko jox kenn loolu moo tax mais war nañu tirer leçon. ci mais est-ce que c'est pas bu ñu gisee Sonko. résultat yi mu am ci en 2019 arrivé en troisième position ora bi nga xamante mais Sonko n'existe plus ora bi nga xamante ça c'est le passé ci diggante bi sénégalais yi ñenn ci ñoom bëgg ko ñenn ci ñoom bëgg ko fal donc est-ce lu ni mel tam ñoom dinañ ko perte nii dinañ ko bëgg perte ah, nii bokk daañ ko perte kay su fekkee ne ñoom ñu ngi miser ci Abdou Diouf wala ñuy miser ci Senghor wala ñuy miser ci Abdoulaye Wade kay dañuy perte miser Sonko c'est comme tu mises sur ces gens du passé sur ces sur mënatuñu bokk. jeexal nañu ñoom ñàkk bokk jeexal na soo ñàkk na. ñoom ñàkk bokk boobu d'accord ci ñoom dinañ ñoom li ñu ko jàppee moo di jaay doole mais Karim Karim parce que nee nañ ces condamnations ne sont pas définitives donc fan ngeen sukkandiku mooy affaire Karim bi c'était la même chose gars yi dañu waxoon ne dañuy Karim day bokk par la force voilà Karim day bokk par la force tu te rappelles cette phrase là c'est la même chose qui se passe Sonko gars ñi dañoo bañ rek i sont orgueilleux mais li ñu wax ni du dara nañu bàyyi Sonko uti candidat jël seen nit ñi mu topp kooku loolu moo moo gën a avantage ñun nag suñu sañoon ñoom nañ fa nekk ñoom ñëpp kenn ku nekk di wuti candidat ñun loolu moo baax si ñun donc one laa là dañ leen seetaan mais Sonko jeexal na parce que ko la mu def ba ñu tëj ko ci kaso bi léegi fa mu nekk mënatu faa génn te ko waxoon ne wuy ma suñ ma suñ ko tëjee fii ak deux heures de temps juge ba fa mu nekk daañ ko fa fekk daal di koy baxañ yóbbu ko léegi fa mu nekk mënatu faa jógee gars yi da ko koy yërëm moo tax gars yi war a xam ne affaire Sonko jeex na. mais monsieur su dee démocratie la affaire Sonko jeex nañu wuti leneen. ñoom bu ñu leen di jiiñ tout nii da leen di jaay doole bu ñu leen di jiiñ tout nii da ngeen bañ ñoom li nga xamante ni moo di langam politique bi bu ñu leen di jiiñ tout le temps xam ngeen ni bu ngeen bokkee

mais Sonko raje nañ ko nekkatul gi liste yi ni ñu rajee woon Khalifa Sall rajee ko Karim Wade te mujj ñu nekk kandidaa foofu la Sonko toll donc gars yi dañuy wax lu leen neex rek ñun loolu euh, sénégalais yi yëpp ñi nga xam ne ils sont épris de démocratie loolu dara ci ñoom lu ñu war a wax pour Sonko seen wax la mais Sonko mënut a fexe ba nekk candidat c'est pas possible et puis yàlla dafa bëgg Sénégal. mais dafa bëgg Sénégal parce que Sénégal dafa naroon dafa naroon a dafa naroon a dafa a tas li fi ñoom Cheikh Ahmadou Bamba liggéey El Hadj Malick liggéey ko ñu war a ñëw fii fii lépp daal di indi ay reyante mais quand même waa yàlla bëgg na Sénégal mais est-ce que c'est normal may la loolu c'est normal. parce que il est radié. sur les moom moo war a statué moom moo war a statué ci kii bokk ak ci warta bokk. conseil constitutionnel. non mais d' abord mais jotu sa yegg ba foofu. déedéet moom dàq nañu ko. a anticipé administrativement. dàq nañu ko. léegi nag moom soo amee lu muy yóbbu na ko yóbbu conseil constitutionnel conseil constitutionnel heure bu ko neexee mu ne li ngeen def dindi naa fi on a vu l' affaire de euh, la mairie de Dakar mooy affaire candidat yooyu ñoo ñu éliminé woon. dañu leen éliminé ba ñu demee ba conseil constitutionnel xam ne ah, li leen éliminé woon du ci yoon dañ leen leen donc lii DG e def moo sur le plan administratif euh, Sonko n'existe plus sur les listes donc Sonko ne peut pas s'imposer de lui-même nit ñi aussi bu ñu ko imposer suñ demoon nag ba conseil constitutionnel wala ñu dem ba en cour suprême daal ne bindaan leen Sonko keroog balaa ngoon a jot ñu bindaan Sonko dégg mhm. mais fi mu toll Sonko mënut a am li yi am te gars sax xam nañ ko ñoom ñu dem déposer quatre listes kay. lan moo tax lan moo tax demuñu toog seen kër. parce kan peut-être li ngeen bëgg du mais kon li ñuy gëm gëmuñu ko parce que soit kay. da ngay gëm ne non soit da ngay gëm ne. Sonko mii dana mën a nekk candidat comme ni ñu koy waxee par la force nga yem ci loolu soit yow nga gëm ne Sonko mënta ne candidat yéen yéen ñëpp. kenn ku nekk dem présenté wu ji. déjà ñoom stratégie boobu ñu teg ça di teg fu mu nekk nii euh, seen ay plan B C D E ba ba sax ñoom ñëpp ku ci nekk yebal sa sa sa sa mandataire mu dem récupérer la sa fiche de parrainage notamment Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Diop Guy Marius et autres yéen lu di mel monsieur le ministre ak expérience bi nga am ci wàllu politique naka nga ko jàngatee. loolu loolu loolu dafa am limite parce soo ñëwee di déposé nga ne Bassirou Diomaye Faye wala nga ne xaw ma kan ki. Birame Souleye Birame Souleye wala yooyu. mais tur woo nga jël dafay toog ba donc moom su demee yoon bi muy jaar du jaar ak yoon bi parti politique yi di jaar ak bi coalition yi jaar suy wuti parrainage day wuti parrainage comme un candidat boo xam ne moom candidat indépendant la donc déjà wàcce nañu yoon. wàcce wàcce nañu yoonu parti dégg naa moo tax nga xam ne comme ñoom du ñu dem cest ñoom kenn mënu ci dem. c'est-à-dire qu'ils se sont condamnés déjà ils se sont condamnés déjà su fekkoon ne dañoo demoon ak coalition nangam la ñu demee ñu déposer coalition bi ba ñu reconnaître ko ñu dugg ah on peut comprendre mais fi mu toll nii ils se sont fourré le nez ah dans le mais ñoom ce qu'ils disent moo di du ay plan yu serré c'est-à-dire ba tey plan mooy seen plan A jusque ni rek peut-être stratégie la bu ñu teg pour bañ a perte li nga xam mais stratégie baaxul seen stratégie baaxul parce que peut-être xamoon nañu ni euh, dinañu refuser euh, la fiche à son waaw mais ñoom ñoom du ñu dem sa à dire que ñoom mënuñu dem parce que candidature indépendante la ñu la ñu déposé et ce sont des hommes politiques qui sont reconnus qui font de la politique jusqu'à présent ñoom déjà ils se sont fait éliminer. kon bu ñu nee parrainage yi bu ñu indee parrainage yi kon kenn du ko ka kat recevoir mais quand même mais mais mais dañ ko recevoir mais dañ koy éliminer après parce que ce sont des candidatures alors euh, parce que nekk ñëwuñu ci parti politique déposé wuñ ci coalition ñoom dañoo déposé ci seen turu bopp ay candidats indépendants te son ne sont pas des candidats indépendants loolu loolu la xamuñu politique c'est tous ces gens là dañu dégg riir mi rek. ñu ñëw ànd dugg ci dugg ci sumbaxloo bi moo tax réew mi yàqu ñu xaw ñu xaw na tasu réew mais est-ce que la personne d'Ousmane Sonko dérange euh, dérangerait à tel point que ni tey jii même ay jege ñaaleem sax ku ci jéemoon sam sëlënd wala nga jéemoon bokk ci beneen coalition sax ñu jéem la bàyyi déedéet ku ci jéem a jaar ci yoon yoon moo lay faral yoon moo lay jàppale mais soo jaaru ci yow tëñëx tëñëxi ma ne gaa yi jëm Thiès yow nga jàdd daal di jëm xaw ma euh, ci ajak jak mais quand même doo yegg c'est ça qui ñoom dañu war Abdoulaye dafa wax ne nitu politique dafa war am xel c'est-à-dire lépp loo xam ne daf lay yàqal da nga ko war a moytu mais quand même yow da ngay engagé wu da ngay da ngay daw daay nga tàbbi jëmb mais quand même tu ne réussiras jamais te loolu moom moo ne rey ñoom xamuñu exactement lu ñu war a def ak lu ñu war a def Abdoulaye doon wax ne éviter leen ñu leen di tëj fet tout pour ne pas être condamné nga mais yow yaa ngi dem ñu jàpp la pour ñu jàpp la. da ngay dem def benn jéyee ne kaay ma def benn jéyee ñu jàpp ma ñu jàpp la konam ne la éliminé la cest ñoom ce sont de mauvais mais ñoom li ñuy xam lan moo di bu Sonko bokkul ci élection élection du am ci mu réew kon moo tax ñenn gi sax dàq ñu un report. non report moom mënut a am te dañu waxoon ne Sonko suñ ko tëjee ma dañuy jàpp sax juge ba balaa deux heures de temps te loolu yëpp ay ay caaxaan la tout ce qu'ils ont dit jusque là c'est faux donc wax ne Sonko su bokkul élection du am gars yi fàtte nañu Sonko fi mu toll Sonko yenn journalistes yi leen tudd ci télévision yi. mais Sénégal doo dugg ci biir Sénégal ba gars yi ne la Sonko. ma ma adhéré man dama dem naa Saalum dem naa Saalum fan yii. voilà dem naa Saalum fan yii. ana gisoo aussi ce qui s'est passé de récemment président bu mu demee New York. nit ñaa ngi wax Sonko. non ñooñu ñooñu ñooñu. ñooñu ñooñu ay reeterkat lañu. c'est des gens xamuñu li xew ci réew mi c'est des gens yoo xam ne ñoo xam ne sax Sénégal mënut ñu fee ñëw. am na ñoo xam ne dañuy toog wax lu leen neex rek loolu moom mooy seen moment de récréation surtout mais soo demee ci biir Sénégal gii soo tuddee Sonko ñu eh ndeysaan kooku ne ndeysaan jeexal na rek c'est fini kenn du ko tudd c'est-à-dire on on n'entend plus son ci biir Sénégal télévision yéen kay yéen a nekk yor seen télévision xoolal def leen blague awur Sonko pendant une semaine dootu leen dégg ko wax ci Sénégal mais vous entretenez Sonko Sonko Sonko songo parce qu'il fait toujours l'actualité. te moom ah, parce que yéen da ngeen yaakaar ne su ngeen tuddee Sonko yaa gars nekk ci internet bi yooyu yëpp dañuy leen di lire da ngay gis sax pour faire un bon titre. boo xam ne gars yi dañ leen di liir ñu ne daal il faut sërxal ci Sonko li may wax nii su gars yi paree dañ ciy sërxal Sonko pour bëgg gars yi gaaw gaaw ubbi ko xool ko parce que soo soo jógal ko am na ñoo xam ne dañ ko xool mais di yaa xëy si dimbali leen ñu Sonko si fini c'est le passé rangez le rangez le yéen yéen waroon waroon ngeen ko fay droit waroon waroon ngeen a fay Sonko droit d'auteur ah fu ngeen wax sonko sonko lu ñor lu ñorul ngeen di sonko. mais s'il fait la qualité a am dara. on en parle xam nga euh, yaa ngi gis fan yi ñu weesu yëpp benn bokk yaakaar vous êtes au devant de la scène parce que ak seen candidature yeeg ak yu ak it jafe-jafe yi nga xamante ni yëpp am na ci ci benn bokk yaakaar gis nga depuis lors ñun ñëpp chaque jour yéen la ñuy waxtaan donc pour dire que ni la presse aussi tout le temps day intéressé wu ci li nga xamante ni moom moo di l'actualité phare

oui dañ waroon a wuti comme daanoo nañ noonu dañ waroon a dem dugg ci yeneen yeneen coalition dugg ci yeneen coalition ànd ak yi foofu waaw parce que ñoom mu de façon ah yeewi bi mënatul dem coalition yeewi moom c'est fini parce que l'un l'un des benn composant bi moom mooy euh, Pastef euh, dissoudre nga xam nga mënatul dem euh, Pastef n'existe plus Sonko ne peut plus être candidat donc tout ci qui est relatif à Sonko et à Pastef léegi si c'est terminé léegi war a wuti beneen voie mais voie bi ñu jël nii mooy voie candidature indépendante boobu baaxul dañu war a dem ànd jeeg ñeneen ñi. dégg nañ sëñ Moustapha mu ne moom dina boot Ousmane Sonko ci présidentielle yow la yow ban dégg nga ci am. bon sëñ Moustapha Sy sëñ nga dégg muy wax muy wax ay fee bi Sonko ah gars yi day dem muy nu mu tudd. crise Sonko di crise crise lu xam ne sëñ que Sonko ñi muy àndal yëpp amul kenn koo xam ne da nga pour Sonko amul gars yi dañuy ànd ak moom naxante ak moom simplement ba li ba li ñuy bëgg ñu am ko mais kenn du ci jël mën a di yekkal Sonko kenn du sëñ Moustapha si du keneen sëñ Moustapha Sy ah, teg na teg na teg na yoonu boppam su Sonko ñëwee da koy boot da euh, boot teg na seen da koy boot xoolal waa Sonko su ñëwee Mamadou Dia oui il s'appelle yi su ñu ñëwee ah dafa leen di boot parce que il a besoin dafa leen soxla ñun sax su gars yi ñu boot leen. non moom nee na soxlawul moom nee na soxlawul électorat wu Pastef wax ko mais loolu wax loolu rek moom soxla ko waaye ku ko jox mu jël su gars yi demoon te mu jël ko mais ça il veut te dire il ne se bat pas pour pour nitu Sonko mooy il sa bat pour sa propre identité. xam nga ñoom waa PUR élection 2019 bi gars yi demee ñu ne ñoom ñu ne ñoom euh, dañuy euh, non Moustapha Sy ñun kii ñu ay candidat ñun ñun wékkuwuñ ci candidature Moustapha Sy daal que ñun nu sommes suñ candidature bopp lañ ñun non rien à voir ak ak candidat Moustapha Sy dem ci télévision ma da nax seen bopp parce que PUR suñ koy wax sëñ Moustapha Sy moo tax donc si vous voulez vous de sëñ Moustapha Sy pour cent du ko am je l'ai euh, sama coalition bi coalition mbooloo askan bi amoon naa un membre sa à dire le représentant euh, ki yoroon su département bu Vélingara muy le professeur Mamadou Aliou Diallo moo nekkoon doyen de la faculté de droit sunu sunu coalition mbooloo waat bi la nekkoon mais en en deux mille en en deux mille deux mille dix-neuf dafa dem ànd ji ak ak sëñ Moustapha woo ko ma ne ko professeur mu ne ma waaw ma ne ko gis nga def ngeen erreur erreur bi mooy ngeen bugg a démarqué wu si Moustapha Sy vous ne pouvez pas vous démarquer parce que su ngeen àndee su seen tur bi ma ne ko ma ne ko Sénégal yow jàng nga droit mais xam nga ne alors am un guide religieux c' est pas un délit c' pas un délit et en matière électorale ça ne peut pas être un délit que yow Moustapha moom mooy seen guide donc yow jàng nga droit erreur bi ngeen bi ngeen def noonu. mooy ngeen bëgg ne da ngeen démarqué wu ci lui ma waxtaan ci ba sonn ak moom ma ko du ngeen am. mais est aussi tamit révélation bi sëñ Moustapha def ci gàmmu gi nii ci Ousmane Sonko du gën a indi ay tension ci askan bi c'est-à-dire ñee bu ñu gisee ni demoon nañ seeti ji ko kee di crise crise du ñu sukkandikoo ci sëñ Moustapha li mu wax ndax du gën a ñaga seen mbir. ah mais xam nañ ba mu commencé bokk ay ay feem rek lay Sonko def ba egg si fii bi mu génnee daal di ne na leen jaral seen bakkan ah woo xale yi lan moo taxoon mu leen jaral seen bakkan parce xamoon na ne. procès Adji Sarr la doon bañ donc il a engagé les jeunes ah dans un combat mortel dans un mortel combat c'est-à-dire yàggee na loolu xam nga ma la Sonko yàggee na yàggee yàggee na loolu donc ñoom waa yeewu askan war nañu xam ña fa bokk yépp war nañu xam Sonko nan lay nan lay doxee Sonko quand il a du ma dem ñu juge ma ah su ma su ma juge bi du ma dem ak di diit diital fu nekk bu fay jaar lan moo taxoon il voulait pas se au tribunal parce que bugguloon jàkkaarloo Adji Sarr muy sud mu muy muy dindi ay mbóotam mais les gens là dañ ko ci jàppale ànd ak ànd ak moom adopté ko mais fooy mujj parce que tôt ou tard la vérité jaillira. d'accord et la vérité a jailli. oui donc ñooñu. oui loolu suñu su indee ay tension xamoon nañu ko ne Sonko ay feemam lay yore moom lay génne pour entraîner ci nit ñi li sañ mu Moustapha Sy wax. man jàpp naa ne man dëgg la parce que suñu Moustapha Sy moom dëgg la yax ñun ñoo àndoon euh, bi nekk PDS ñun ñoo doon ànd ñoo doon ànd ñu géew muy taxaw muy wax nii ni muy waxee nii la daan waxee mm-hmm. ba léegi donc lu mu sentir moom lay wax oui il a raison mais monsieur le ministre tey jii présidentielle bu ñu ci écarté Sonko kan lañ mun a jàppee dëgg-dëgg concurrent wa Amadou Ba amul ñu ñëpp ñëpp ñu bëri ñi ma gis fii daal pour le moment ñu ma gis muy fii yëpp parce que d' abord man le premier critère bi ma Abdoulaye Wade waxoon moom laay jàpp est ce que damay xool soo ne mag diw mooy candidat est ce que am na parti politique est ce que am na support comme auto course la day daw wala day daw course fos est ce que am na fos ku bugg a daw course fos yoruloo fos nga ñëw daal dem bindu ji ne ma maa ngi écrir temps <laughs> yoruloo fos. Khalifa Sall am na fos Karim Wade am na fos. waaw ak kan waaw. Euh, Bougane am na fos. kan non Bougane amul. non buggaan amul Bougane Bougane li muy wax ça ne repose pas sur un parti politique sur un système non Bougane amul. amul foofu non amul non waxuma forcé de. ne la amul un support politique structurel cest à amul un parti boo xam ne ah day fa structuré bu bu nekk ci biir réew mi Bougane amul loolu. waaw mu am am na bon Karim Wade am na ko ak le PDS. mais Bougane am na mouvement bu dëgër Khalifa mhm. plus ou moins même Khalifa Sall il n'a pas achevé. sa structure n'est pas achevée même Khalifa pour mu gagner sax day jafe parce que sa structure n'est pas encore achevée gis nga président gis nga Macky Sall bi muy gagné Macky Sall premier ministre c'est-à-dire dans tous les rouages de l'État dans l'ensemble des ville ak des communes ak des départements fu nekk am na fa nitam ba pare il a eu un parti xam ne kii est allé aux élections en 2008 élection législative mu toogaat 4 ans door dem candidature fekk na moom sax na ci dëkk bi mais noonu la ñuy mën a gagné moo tax may la toutes ces candidatures là au sein de Benno qui n'ont pas ça ce sont des candidatures qui n'ont pas d'avenir presque presque deux cent candidatures nga ne ñoom ñëpp kenn kenn arrivé wu ci ci tënk à la cheville de de de Amadou Ba lu nu mel sax. non c'est li Amadou Ba am. Ah, Karim Wade su fekkee ne dina ñëw am ko. Euh, Khalifa Sall. su fekkee ni kon ba tey ñëw Karim Wade wóoru la. et plus ou moins non man wóoru ma plus ou moins. lu tax wóoru la même Moustapha Sy nañ ni même Moustapha Sy am na pur. dégg nga d' abord il faut avoir un parti d' abord légalement il faut avoir un parti deuxièmement il faut troisièmement il faut que ce parti ah soit représenté à tous les niveaux ah département commune village. pour nga mën a prétendre na yow war ngaa mën a gañe dara mais dangay ngay bind mouvement boo xam ne kenn xamu ko wala yow nga nekk ci gouvernement bi nekk ministre ah dema dem ba ñuy eh, eh, poser candidature nga bugg a nekk candidat wu bennoo bennoo bañal la ko nga dem nekk sa candidat doo mën a gañe parce que amoo foo sukkandiku pour gañe loolu da ngay yàq ñooñu moo tax gars yi dañu war a indiwaat seen xel yu revenir mais critères yi nga wax noonu yëpp sànq mu ngi ci be mu ngi ci biir mu ngi ci biir am nañu représentativité. non il manque une chose au au au PDS ak à sa coalition l'engagement réel de Karim Wade sur sur le terrain c'est-à-dire Karim Wade a jeté un doute sur sa propre personne le fait qu'il est resté mu toog étranger ñëwul loolu moo tax moo mooy yàqal Karim lu bëri moo tax. nit ñi moo tax ko fi nga toog la toog. moo tax nit ñi gëmuñu ko Doudou Coulibaly nee na. Mhm. moom sax mu ngi mu ngi am xel ñaar ci ci ci liberté wu Karim nee ndax Karim fee mu nekk. am na fa dëgg-dëgg liberté. saa kon xam nga ne Karim jeexal na parce que Doudou Coulibaly dafa xër dafa xër ci Karim xër ci Perez xër ci Abdoulaye su ne wax loolu xamal ne pexe jeex na cest à Karim moo jeté le doute dans l'esprit de tous les Sénégalais en premier lieu de ses parents même ñi ànd ak Karim dañuy douter parce que waxoon naa man élection 2019 Karim du ñëw du bokk gars yi saaga ma wax ma lu ñaaw wax ma lépp Karim ñëwul Karim su bëggoon dara su amoon amoon fayda xam ne papaam liggéeyal na ko papaam teg na fi structure lu wóor Karim suñu ne ko yow léegi topp nañu la dara du fanaan du fanaan dowaa day ñëw ne cëpp Sénégal lu mu am jël mais ni mu ni mu naxee woon ñoom euh, Omar Sarr ak Cheikh Dieng ak euh, maître Amadou Sall ne leen danaa ñëw ba à 48 mu fay portable am ne leen gisuñu ko gars yi man dem obligé déposer à sa place dama ragal ñu demaat mu amaat loolu. mais à ce rythme daal di à ce rythme ndax PDS kon euh, du risqué bañ a am candidat en 2024 sachant que ñu des ci weer yi bëri. dul non mën naa mën naa parce que PDS. fii ak doomu xam nga PDS. orgueil bi ma la waxoon ci affaire Sonko moo ngi nekk c'est-à-dire que yi bëgguñu jox dañ yaakaar ne seen parti yi ñoo ko moom cest à yaakaar ne PDS lay Wade moo ko moom donc Ablaye Wade da koo war a yekkal doom ji loolu moo taxoon gaa yëpp dem. léegi doom gi tam day yaakaar ne kooku waru koo bàyyee kenn moom moo ko war a yore ba mu yàqu ci loxoom ba neen bi toj ci loxoom loolu la doom ji yaakaar mais xam nañu ne moo seen même su fekkoon ne Karim Wade du ñëw ni ñu tànn ci biir PDS nit ku dëgër ne ko yoral affaire yi demal heure bu Karim Wade ñëwee nga xam ne ñoom su ñëwul yow demal nga présenté wu ji mais konoon PDS am am na au moins 20 pour cent. Mhm. PDS a au moins élection yi mu dem yu gën a bon bi ñu daanoo ba léegi am na 16 pour cent. 16 août am na 17 pour cent 17 donc cela veut dire que am na fa am na am na lu fa nekk mais amuñu quelqu'un qui est méritant koo xam ne mën na jël loolu c'est-à-dire Karim n'a plus d'engagement politique. d'accord c'est ça. d'accord monsieur le ministre fi ñuy nag suñu waxtaan waxtu bi gën a tàkk euh, mooy laaj bu mujj bi euh, lu tax sampoo sa nënd en 2024. non sama 2024 mënuma samp sama nënd parce que wax naa la première raison mooy mooy mënuma gagner. lu tax mën a gagner. non je pas encore un système. un maillage parfait autour territoire pour ma gagner su ma sañoon man damay nekk candidat parce que li Macky am <laughs> ah, damay lax rek président Macky li mu am man man naa ko am mérité naa ko fa ñu jaar falaa jaar ak ñeneen li Karim di wut Karim dàquma ko parce que li ma xam ci ci système bi Karim xamu ko donc su ma bugg mën naa am mais jàpp naa ne aw ma fu ma sës pour man ko gagné léegi fi ma toll nii te bëgguloon nax sa bopp. non te non bëgguma nax sama bopp bëgguma nax tam Séné <laughs> Sénégalais yi. mais mun naa dem élection législative su ma gisee sama bopp ne ñii kat duñ ma jël élection législative balaa booba mën naa préparer wu am sama ay nit am sama liste présenté wu. c'est ce qui s'est passé aux élections aux élections euh, ba ñu demee ba à la fin ma xam ne gars yi kat duñ ma jël te ma xam ne man ma sama gars yi kenn ku nekk am nga foo xam ne man nga fa ñu ne ñun nañu dem ñu présenté wu man sama dëkk yi mu si présenté benn bokk yaakaar maa ko raw yeewi bi maa ko raw euh, kii wallu maa ko raw donc c'est ça cest à que da ngay dem am lu la naqari nga jàpp ci li la naqari pour mën a am ëllëg loolu la neex mais su fekkee ne foo amee lu la naqari jël say bagage daal di dem wala nga ñëwoon damay def li kii di def ah doo doo jóg ci réccu. gouvernement bu Macky Sall nag ñu bëri ñu ngi doon xaar à Sëriñ jox la ki nombal tànk tabaar la comme ministre comme ni nga ko nekkoon su Wade loolu ma jotul am euh, yaa ngi fas yéene gungewaat ko ci candidat wam bi di Amadou Ba ñu ngi ni lan moo ci tukke. waaw lépp ci loxo yàlla nekk mais itam kiy jiite moom mooy seet kan lay nommer c'est-à-dire président de la république mooy nommé à tous les postes civils et militaires. de par son pouvoir discrétionnaire moom moo xam ki muy nommé ak lan moo tax mu koy nommé quels les critères objectif ak critères subjectifs yi tax mu nommé ko donc su fekkee ne nommé wu ma man jàpp naa ne xam na ne am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ma gënoon a jekk ci post bi même lu ma ko bëgg-bëgg loolu mbiram la du sama mbir moo tax ku ma laaj na ma waaye président waroon na ma ma ne déet man loolu du sama affaire kooku ay dama leen wax ngeen wax ko ak président parce que moom mooy nooy moo am pouvoir man aw ma pouvoir bi moom moo xam ay critères am donc c'est valable pour tous les sénégalais mm. am koo xam ne moom mooy fal yow mi yor sa di maye yaay seet kan nga koy may yow miy joxe yaay seet kan nga koy jox kon yéen suñ leen joxul bu parce que doo tàngal ma il faut ngay tàngal tuuti di xaw xaw non je ne fa ma ànd fa ma jaar ak moom nit ñi fa ma jaar ak ñoom ma jaar ma yaakaar ne combat bi bañ ko commencé ba léegi xeex bi ma ciy xeex Sénégal yëpp gis na ko président si boppam su ma bëggee nommé war ta tàggu kenn waru waruma ñëw di ko laaj. d'accord moom moo war de par xelam. mu ne far ba mérité ni lii ma jox ko mais man rus ko tabu ma lii. en tout cas monsieur euh, a été un plaisir. Euh, dalal tey suñu bu 13 minutes de vérité di la remercier bu baax a baax ci wuyu bi nga wuyu si invitation bu Sénégal 7 di la remercier aussi parce que nag tëjoo ngi say buntu ñu Sénégal saa ñu la soxlaa que suñu plateau wala muy sa kër wax dëgg na xel bu la ko sa jot may ñu koy yombal lu ci mel ñu ngi la ciy gërëm bu baax a baax bàyyi nga tàggatoo le mot de la waaw man euh, di la gërëm d'abord parce que di wane ne euh, yow da am ay question pertinente ah. yoo xam ne da nga koy jëlee fu sori ku comprendrewul alors du xam fi ngay jëlee sa question yi mm. et da aussi la femme dafa am ay Sénégal ay jigéen ñoo xam ne ñu nekk ci plateau de télévision yi vraiment qui sont méritantes jigéen ñi yóbbu lu leen dara comme yow ak Aïssatou Diop Fall ak ak Binta euh, kii Binta Diallo ñu ne ñu ñu mel noonu ak euh, am na même la dame la kii ki nekk kii euh, Sen TV. Fat Abdou. Euh, keneen keneen kii. Ndeye Fat Ndiaye. non keneen kii. kan si Nene Aïcha. Nene Aïcha surtout. ñooñu ñooñu ñëpp baax nañ quoi mais ça dafa am ñoo xam ne day elles sortent du lot et ça c' est est important c'est-à-dire jigéen ak góor ñoo yem ba pare di quémander ñu lay jox ay position ça da ngeen war par seen liggéey par seen dignité. par ni ngeen di doxalee nit ñi gis leen ne leen yéen vous êtes méritant. c'est important loolu moo tax man ma ne yéen cest di que ay ay royukaay ngeen mais je vous je je parce que àdduna bi kenn ëppalewul kenn dara man dama yaakaar ne li ëpp solo mooy yow loo man soo koy liggéey liggéey ko ba mu rafet. Mm. donc góor ak jigéen foofu la ñuy foofu la ñuy yem. li ci des moom yàlla moo ko yore. kon ñu lay gërëm baax di la sant. ñu lay gërëm di gërëm ñi seetlu ah ñi ñuy seetaan. Mm. di leen sant di leen jégalu tam nag. Mm-hmm. voilà alors ñu ngi lay remercier bu baax a baax di remercier aussi la régie tuuti Ismaïla ci liggéey bu am solo bi la rédaction de Sénégal 7 juin pour la coordination yéen ñi nga xamante ne aussi tout le temps yéen a safoo suñu ay programme ñu ngi leen di remercier bu baax a baax tey di leen jox dig daje ci leen i plateau jërë ngeen jëf.